yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf waami gi wër réew mi waar waa réew mi jaaxle gu mu jur ci ndakaaru rek jur na ko raw ca Touba yëral xët mu njëkk Vox Populi xibaar bu miti te tiis la journal bi xëy joxe juróomi xale yu lab ci ndoxum taw mi ba jaare ca ñàkk seen bakkan yéenekaay bi xamal ñu ne ginnaaw gone gi laboon bërki démb ci inondation yi ca kër ñàng ak geneen gone gu jigéen gu ndoxum taw mi yóbbu woon ca kax ca sexaw ca Touba am na démb yeneen ñetti xale yuy lab ba faatu ci ndoxum taw mi woon ca carrière ba ca Daaru Rahman sour soi nañu xale bi faatu ci ndoxum mi keroog dimanche ca kër ñàng fukkeet la amoon démb na beneen xale bu jigéen bu amoon juróom-ñaari at dëkkoon Mbuur demoon vacances Touba moom xale bu jigéen bi nee nañu dafa barastiku maanaam glissé tàbbi ci benn puits d'infiltration boo xam ne source wa nee nañu wax nañu ne waa Touba ca kanam ñoo ko fa gasoon ci jamono joojee ci la ñu yëgee yeneen ñetti xale yu faatu ci ndoxam taw mi ca Daaru Rahman te du loolee rekk mooy coono bi inondation yu jur ca Touba ndax source wa mi ngi ñu ci dollil ne seeni kër ndox mu set mi seen eau di jox journal bi mi ngi ñuy wax ne kër gi ñu dénk séddaleem ndox mi ci biir kër yi mu di seen o borom kër yu bëri guuxal nañu ko mer mu rëy facture yi ñu leen jox la ne moo jéggeeti dayo ba tax ñu koy jooy ak di ko jooytu ci biir l'observateur ci borom kër yi ñaxtoo ko xultu am na kenn ko ci 60 000 facture ub ko ndil am ko jàpp ne waa seen o li ñuy def du dëgg du yoon te buñ leen ci seetaane bàyyi leen ci ci riiw ne askan wi la jëm libération suukar si ak njëgam yokku na diwlin gi ak njëgam yokku na gaz bi leen war a tàngal moom it ak njëgam tàng jiira la def yokk gi ñu nemmeeku ci njëgu dund gi libération nee nañu kuréelu commerçant gii di association des commerçants et industriels du Sénégal nee nañu nañ leen ci keccet ba set wecc taqe wuñu ci laale wuñu ci ak yokk bu amee ci njëgu dund gi rek état bu Sénégal ne monopole gi am ci suukar si li fekk état bu Sénégal dindiwu ko suukar dana desee sa paaral ci réew mi le témoignage bëgg a yokk njëgu suukar si le témoin nañu li koy firndeel moo di lu jege fanweeri junni tonnes yu suukar ma nga ñu denc ca magasin bu usinub suukar bii di compagnie sucrière sénégalaise te loolee ñu fa denc ci suukar bu ñu ko génne woon dinañu toog lu mat ñeen fukki fan ak juróom yoo xam ne kenn du déggati waxi suukar ci réew mi journal bi bind na état bi tàmbali na réagir ci njëgu suukar si ak ni mu yokkee ne bu weesoo ndajem conseil national consommation gi ñu wote tey jii ci talaata ji ngir waxtaane njëg yi état bi ajandeegum na taxe yi woon ci suukar si jóge bitim réew di dugg ci réew mi Le Quotidien xëy dugg ci si état bi suukar na commerçant yi suukar si ak ni mu manqué ak it ni mu seere moo tax état bi jël décision teggi taxe yi la si ne kay xëyi xibaar bi ci xëtu mu njëkk ba wax ñu ne taxe yi woon ci suukar importé bi nguur gi ajandeegum na ko suur suwaa tegal ko ci ne dogal boobee état bi jël dana ca ñàkk lu mat juróomi milliards di koppar yu waroon a dugg ci économie réew mi économiste bii di Moubarack Lô moo nekk ci xët mu njëkk l'observateur njëgu dund ñuy yokkee ci la xëy di waxtaan ak waa l'observateur la ñu ca waxtaanee yépp bu ngeen demee ci page 3 de l'opposition la moo joxe xibaar bi ba xamal ñu ne moom jiital gëm sa bopp lu mat fanweeri parti politique ak i mouvement ñoo ko mandaté ngir mu dem ca coalition ba alliance bi ñuy wax ci diggante parti Pastef parti démocratique Sénégal ak taxaw bu Khalifa Sall Walf Quotidien nee nañu njaw ma ngi cee ndax ñoom ñett ñëpp ku ci nekk am na luy gàlle ci saw Karim Wade coowal bien ak i Khalifa Sall caisse d'avance ba Ousmane Sonko coowal mbës nañu dañu ko fekk mu pàndar boppam ca kees ku ba mu doon liggéey laata mu doon pàndar boppam ba jaare ca faatu amoon na benn lettre bu mu bind bàyyi fa la mu bind ca lettre ba Les Échos nee nañu moo di dane Sidi amee lu ma tóoni benn bor moom ci jëmi boppam moo lekk sama 1 million 269 mille ci suufu lettre ba mu bind ca Orowar Sidi